ñu ngi koy jooyte noppeeguñu tey nag euh, prétexte waxtaan bi xam ngeen di ñi nga xamante ni mooy classe 98 maanaam ñu bokkoon doon euh, ci année bi nga xamante ni wala sax ñoo duggandoo armée euh, àndandoo defandoo lépp tey dañu de benn point de presse di indi ay leeral ci wala sax di demander justice ci mbiri nga xamante ni moom mooy Fulbert Sambou laata loolu dama lay nuyu bàyyi nga nuyu mbokkanteel ñu Sen Teranga TV. waaw Ousseynou ñu ngi ziar bu wér di nuyu waa Sen Teranga di nuyu waa Sénégal di nuyu àdduna yëpp. plus particulièrement contingent 98 une di ziar ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm ci biir Sénégal. donc euh, tey du ñàkk dinañ ñëw ci sababu waxtaan bi mais forcément forcément nam nga sa frère bi. waaw franchement parler dañ koy jooy ba léegi noppeeguñu muy man ak keneen ak keneen ak sénégalais yëpp ba ci njabootam ñu ngi koy jooy te noppeeguñu kon euh, franchement parler. Fulbert manqué nañu manqué nañu lu bari waaw. lu bari alors bu ñu ñëwee si un peu conditions yi nga xamante ni bon ñëpp ñu baree bari ci sénégalais en tout cas li ñu annoncé mooy mort noyade maanaam dafa génn àddina dafa lab. waaw Ouzin xam nga am na loo xamante ni dafa neexutal dégg ci nopp rawatina koo xamante ni ci île la juddoo muy ñoomul en plus Fulbert buy napp day nappee ci xeer yi lay nappee. te muy nappee boo ko xoolee tey jii foofu nit boo fa wàccee sax ndox mi dalay delloosiwaat ci xeer yi kon loolu ñu ñu gëmloo noonu loolu ñun gëmuñu ko tey gëmuñu ko ëllëg ndax amul li may wax rek moom laay wax toujours Fulbert a été assassiné Fulbert a été tué ainsi que Didier Badji par le régime de Macky Sall Macky Sall ak ay ñoñom Macky Sall n'est plus la mais ses complices sont la et je partout la où je vais cite les complices de Macky Sall ay jàpp ni ñooy complice ay complice su Macky Sall weesuwul tey jii Fulbert était un militaire Didier était un gendarme tey foog naa ni Macky Sall il était le chef suprême des armées le président et le chef suprême des armées tey sa njaboot bu ci kenn manqué war nga ko wër bu ci kenn làqoo tamit au niveau de l'armée am na ñu jumtukaay boo xamante ne ci la ñu war a waxee muy DIRPA mais gis nañu depuis Fulbert gaañu kenn rek soi-disant sax kenn moo ci wax soi-disant ñu ni Fulbert gaañu na par noyade kenn moo ci wax muy le procureur te pour le procureur balaa muy wax Fulbert am na ay chef benn l'armée a été très bien instructurée tey boo weesoo le chef suprême des armées qui était Macky Sall qui le chef euh, le chef de l'État boo jógee ci Macky Sall y a le ministre des forces armées ba jógee ci ministre des forces armées y a SEMGA le chef d'état-major général des armées après le chef d'état-major général des armées y a le commandant de la zone militaire numéro un ndax moom fii la bokkoon Dakar mooy zone militaire numéro un boo jógee ci loolu am na corps d'appartenance am te corps bu nekk am na chef de corps bu jógee ci loolu corps bi mu bokk am na unité mooy unité bu mu bokkoon muy renseignement kon foofu am na chef de service mais ñun li ñuy naqarlu mooy boobu ba léegi amul benn autorité militaire boo xamante ni taxaw nga nga jéem ñoo leeral wax ñu ci kaawu Fulbert Sambou que ni procureur rek moo ci wax euh, le 23 biñ nee gis nañu kooru Fulbert procureur rek moo ci wax te loolu ñun rafetlu wuñu ko te ñu doon am benn armée bu nga xamante ni une armée très professionnelle très bien structurée kon foog naa ni lu ci mën ti am autorité militaire yi war nañ ci mën a wax andil ñu ci ay leeral ba ñu xam lan ak nan ak naka lañ fi jëlee Fulbert Sambou mais tey buñ ñu bëggee gëmloo noyaat man moom laa wax léegi j'habite à Yoff te buñ demee bañ ne corps bu nga xamante ni décomposition avancé corps bu nga xam dafa décompose décomposition avancé foog naa ni pour kay nga jëlee ko ci plage bi pour jóbbu ko sax day metti ndax foo laar cër da lay topp donc on doit l'enterrer sur place mais corps boo mën a jël repêché ko jël ko daal di koy yóbbu ba yóbbu ko ci morgue téye ko fa le 18 la Fulbert disparaître ba le 23 lañ ne la ñu gis corps bi nga mën a jël corps boobu téye ko ci morgue ba le 29 nga enterré ko mais corps boo mën a yóbbu ci morgue war ko mën a autopsie wala ndax bu fekkoon ni décomposition avancée boobu ñuy wax kon mënoon nañ suul corps bi sur place en ce dinañ leen gëm ni décomposition avancé beneen bi. nit ki naka lay ko ñun on est des musulmans Fulbert est chrétien ñun xam nañu kooru chrétien dañ koy exposé à l'église d'abord bu ñu ñëwee ndax bu ñu ñëwee au sein de l'armée am na cérémonial bu ñuy def cérémonial militaire ci levée du corps bi avant ñu lay muur drapeau bi mais avant boobu dañuy exposé corps bi bu ñu jógee foofu dañuy war a jëlaat corps bi yóbbu ko dans la maison familiale bu ñu demee dañ ko far a exposé waat bu ñu jógee maison familiale yi ma fekkee quoi. dañ koy jëlaat yóbbu ko à l'église bu ñu demaatee à l'église tamit dañuy exposé waa corps bi pourquoi on n'a pas exposé le corps de Fulbert te le pourquoi jabaru Fulbert ñëw jóge ba Ziguinchor ñëw ba Dakar sa borom kër làqu ci yoon ba nga xamante ni làqu ba nga xamante dañ koy lam-laamee nga ñëw ñu la koy wan par téléphone la femme a boudé dafa dem yoonam ba tey gisul borom këram ay gisul borom këram moom nan la koy dundee moment bi ba nii gisul borom këram. non comme ku nekk rek tey jii ku mu doonoon sa doom tey gis nañu yaayu Fulbert qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'elle disait bu anniversaire bi naree ñëw te amul lu leer yàlla na fi jógee tey anamu fekki na doomam kon tey loolu metti njabootam moo metti ay classe am moo metti bépp sénégalais ba nga xamante ni fa mu toll nii ku ñu fayal fompal suñuy rangoñ dellool suñuy bët nu mu weexee woon loolu lañ bëggaat ndax ki dem mënuñu ko andiwaat mais nañu ci andi lumière andil lu leer naññ ba ñu xam ne lii la ak lii ñi ci woo justice def ci liggéeyam ba nga xamante ni lépp dina leer ba lii bañet fi amati ndax li dal Fulbert dal Didier dal Mankabo dal tous les victimes du régime Macky sàll mënoon na dal kenn ku nekk ñun yéen ñii di nga xamante ni yéen ay taskatu xibaar yi yéen rëccu leen woon ci régime Macky Sall bëri na ay victimes en pagaille ci taskatu xibaar yi amaana seen liggéey sax war leen ko daanu leen kon defee mu waree woon kon nag loolu lañ bëgg mu daal di fi jóge te dootu fi amati ndax fii on est dans un pays le Sénégal muy pays de teranga ñu dekk ci armée ba nga xamante ni une armée très bien structurée Fulbert s'est porté volontaire pour s'engager dans les forces armées de 98 soldats de deuxième classe gis ko ko muy doon un sous-officier de l'armée sénégalaise donc li nga xamante ni liggéey na ko pour armée sénégalaise ba lii tax di am ñun ay classe am li ñuy jooytu ak li ñu bëgg mooy njaboot gi mu fi bàyyi ndax Fulbert travaille pour subvenir aux besoins de sa famille pour que ses enfants ay dans de bonnes écoles on a écourté sa vie on l'a assassiné et je le dis haut fort Macky Sall ak ay ñoñom ils ont assassiné Fulbert Sambou ñoo ko rey ñoo ko rey rey nañ ko léegi régime boobu jóge na fa régime bi fi nekk li ñu leen di ñaan mooy ñu taxawu njabootu Fulbert ñun soxlawuñ ci dara soxlawuñ ci bopp soxla wuñ ci genn li ñu bëgg ñu élucider crimu Fulbert ndax crime la li tax ma ni crime la ñun ñëpp dégg nañu bërki démb li l'ex ministre garde des Sceaux ñëw balaa ñuy ñëw ci garde des Sceaux dama point de presse bi yaa ngi tudd benn benn nervi benn snapper euh, kan la en fait lan la doon toppee mën nga ñu ñëwaatal si loolu. waaw kooku xam nga Sénégal yëpp ñu ngi jàpp naan dafa jokk légion étrangère muy sniper boobu ñuy wax Jérôme Bandiaky le 16 décembre 2023 samay classe yi fi jóge woon di dem Ziguinchor pour dem jaale ji la famille de Fulbert ndax la classe 98 dañoo formé wu ci benn amical amicale bu mag bi mi ngi tudd classe 98 tout court 98 boobu dafa regrouper les deux contingents de l'année 1998 muy la 98 1 et la 98 2 am na beneen boo xamante ni mi ngi nekk à Thiès boobu 98 1 tout court la tudd bii nag les amis de Fulbert man maa ko taxawal boo tax na rëy na mais lu xew ci 18 bi ñun ñëpp dañuy àndandoo en masse daal di dem taxaw xeex loolu muy social ak leneen ak leneen lu mu mënti doon ñi nga xamante dañ fi jóge woon dafa am somme boo xamante ni la classe 98 ñoo ko dajale woon pour dem jaale ji la famille de Fulbert mais bi ñu fiy jógee dakaar le 16 décembre 2023 di dem Ziguinchor ils ont été suivis de dakaar jusqu'à Ziguinchor par qui par de nervis ces nervis ont été recrutés par qui par Jérôme Bandiaki di sniper Jérôme Bandiaki Sénégal dañu am habitude naan euh, légion étrangère la jógee c'est pas vrai Jérôme Vandiaki est de la classe 2001 1 mu naan 2001 1 mi ngi servir au troisième bataillon d'infanterie man j'ai passé au troisième bataillon d'infanterie à la trente et unième compagnie muy camp Sémou Djimit ak Kaolack kaa boo demee moom la ñu wax la légion mooy lii kii mooy légion Sénégal kon Jérôme Bandiaky jaarul légion étrangère troisième bataillon mooy la légion fii au Sénégal pour ñi nga xamante ne xamuñu ko muy camp mu Djimit bu nekk Kaolack mooy la légion mais Jérôme Bandiaky ne jamais été à la légion étrangère wala kon bu mu jógee armée la fa dem mais li ñu xam ci moom mooy classe mille une une le troisième bataillon la servir troisième bataillon foofu mooy la légion te man j'ai passé là ba à la trente e compagnie

kon lépp loo gis ci àdduna rek combat la ennemi bu lay xaar fii di nga war a mën a xool naka nga koy contourner loolu moo tax ba ñooñu tey ji ñu dem Ziguinchor ci jàmm ñibbisiwaat ci jàmm mais seen bakkan mi ngi woon ci xottu gerte te loolu lépp li ko waral mooy bañ mbirum Fulbert ñu wax ci wala mu leer te lan moo ko waraloon mooy le président Macky Sall comme ni ma ko waxee léegi l'ex président Macky Sall qui était le chef suprême des armées son ministre des forces armées à l'époque Sidiki Kaba son ministre de l'intérieur à l'époque Antoine Diome ministre de la justice Ismaïla Madior Fall le chef d'état-major général des armées Cheikh Wade le commandant de la zone militaire numéro 1 Mbaye Guèye le chef de corps d'appartenance de Fulbert Sambou son chef de service la DIRPA ndax DIRPA ñoom ñoo yor kàddu armée lépp loo xamante xew na biir armée yéen xam ngeen ni DIRPA moo ko doon génne kaawu Fulbert rek la ñu gis ci Sénégal mu am biir armée procureur daal ciy wax kon am na lu ñuy ñëpp kon ñii ma cité. dire pas communiqué wuñ ci. dire pas dégguloo ko de yow foog naa ni communiqué procureur nga dégg moom laa dégg moom la keneen ak keneen dégg kon tey jii bu ñu yegsee ba fii ñooñu ñëpp s'il n'ose même pas piper mot sur le cas de Fulbert Sambou et de Didier Badji ji je les prends comme des complices de Macky Sall Macky Sall n'est pas ici au Sénégal on fait tout pour extrader ko ndax pétition bi mi ngi daw pour ñu andiwaat Macky Sall mais ñi nga xamante ni Moussa Fall aussi le général Moussa Fall que j'avais oublier ñii muy Sidiki Kaba Antoine Diome Ismaïla Madior Fall Cheikh Wade Mbaye Guèye le chef de corps d'appartenance de Fulbert sambu son commandant d'unité son chef de service le général Moussa Fall ak ki jiite DIRPA ñooñu ñëpp man je les pour des complices de Macky Sall ndax lu day ni armée ñu doon ay chef militaire militaire jóge fi il n'ose même pas piper mot sur le cas de Fulbert sambu donc nga fekkee nga xam te dénoncé woo complice nga te loolu ñun ñëpp xam nañ ko léegi li ñuy waxaat dañoo am benn devise mooy lan on nous mais on nous déshonore pas mais tey l'armée a déshonoré Fulbert Sambou. mais kii mooy sniper waaw kii mooy sniper. lan la ci Macky Sall parce que dañu gis photo bi dafa jege Macky Sall. waaw jege na Macky Sall ba billion yi jógee ci Coupe d'Afrique bi ñëw moom mu ngi woon fii aéroport di def ay va et vient di am nit ñu muy dugal la ko génnee ndax tey jii fépp foo dugg tey ci armée sénégalaise la classe quatre-vingt-dix-huit ñu ngi fa tey jii. amatul soldat ñi fa des ñëpp c'est des sous-officiers soldats yi fa nekkoon ñëpp la majeure partie dem nañ retraite vendredi passé kon tey 98 desatul armée comme homme de troupe homme de bu ñu nee de troupe mooy nga commencé ko caporal chef ba soldat ñi fa des nag ñan la mooy c'est des gradés kii mooy sniper moo nekk nii kii mooy Jérôme ki mooy comme li nga ma wan jege Macky Sall jege Macky Sall moo tax ñu jëloon ko te ñëpp xam nañ fii lépp lu fi am lu njuut njaaj ak euh, nervi yi fi nekkoon ñëpp kii moo leen doon recruter kii moo leen recruter nan la leen recruter ci ordre Macky Sall la leen doon recruter tey comme li ma la wax gëmloo nañu sénégalais yi naan que ni euh, légion étrangère la jógee jógewul légion étrangère Sénégal fii Dakar Bango. à Saint-Louis fa la defee formation au douzième bataillon d' instruction bi mu fa jógee ñu affecté ko au troisième bataillon d' muy légion bi donc Jérôme Bandiaky ne n'a jamais été à la légion étrangère fii la jógee man fii mu jaar ni jaar naa fa nii la àndal en mille 2008 2009 dem euh, mission Nations uni au Soudan kon liñ ñuy bëgg gëmloo ñun duñ ko gëm tey duñ ko gëm suba nanguwuñ ko te noppu da ko neexul a dégg ça s'entend mal à l'oreille. waaw nga baal ma si dagg bi mooy pourquoi ñoom pourquoi ñoom ñaar lan la parce que jamono boobu ñu ngi doon xay waxu jamono Adji Sarr Ousmane Sonko coow li jugoon pourquoi nga jàpp ni ñoom cible la ñu woon wala lan la ñu woon ñoom. waa ndax xam nga domaine boobu man mënuma ci sori ndax man je suis apolitique te connaissant Fulbert on sait très bien que ni Fulbert aussi il était apolitique. DJ je ne le connais pas bien xaw ma ko sax bu nekkul woon lii duma ma xam DJ mais ak nu mu mënti demee ak nu mu mënti demee ak problème bu mu mënti doon man j'aurais préféré ñu génne la unité bi nga nekk affecté la ci beneen unité moo gën ñuy faat bakkanu doomu jàmbur waaw moo gën ñuy faat bakkanu doomu jàmbur jële woon ko foofu affecté ko ci beneen unité foog naa ni loolu moo doon lii gën a rafet que faat bakken waaye te ko faat ñan lañ on peut dire des amis moo tax ma ni léegi on nous tue mais on ne déshonore pas mais l'armée a déshonoré Fulbert Sambou l'armée a déshonoré Fulbert Sambou nos autorités militaires ont déshonoré Fulbert Sambou euh, mais sànq yaa ngi koy wax Cap Manuel ci ginnaaw noonu si place bi ñoom dañu doon faral di nekk moom ak euh, Didier euh, di fa faral di noppaloo dallu noonu lañ mën ñu jékki rek ñu ni même côté boobu lañ foo mën a lapp wala. non loolu dafa mënta nekk. mënul nekk ndax xam nga lan moo tax mënta nekk ñoom fi ñuy nappee vidéo boobu envoyé naa ko fu nekk Fulbert ci xeer yi lay nappee te boo xoolee fi muy nappee ci xeer yi tey ji dara bu fa waddee sax même bu fekkoon da nga jël benn bouteille vide nga sàndi ko fa tëj capsule bi air moo ciy nekk day tëmb ba ngay gis vague bi da koy dóoraat day dal ci xeer yi kon bu fekkoon ni dafa labee foofu kon foog naa ni vague bi da koy andiwaat ci xeer yi mais du ñu toog ñu ni gis nañ ko à six kilomètres. place bu calme la sax Cap Manuel foofu dafa calme. léegi nag ñu ni gis nañ ko à six kilomètres fii lañu wax ni la ñu gisee Fulbert waaw fii à six kilomètres ak fi muy nappee kon fi muy nappee ci xeeri lay nappee comme bu fekkee ne mën na jóge fële ba ñëw ba fii te gis nga vague yi nu muy dalee ci xeer yi donc kon vague bi dafa waroon jël corps bi andiwaat ko. kon du woon yoon koor bi di def ci ndox mi du 18 au 23 5 jours koor gi koor bi di ko def ci ndox mi du yoon waaw. fi ñu fi ñu daaneel Aba Ismaïla Madior gis nañ ko mu def benn sortie xam naa di ñàkk dañ si indi ay leer parce que moom jàpp na ni Mor euh, Didier Badji ak dañ dafa bokk ci loi d'amnistie bi paase waaw xam nga ñoom dañoo jëfur lu tax ñu jëfur ñoom ñoo wax ñoo toogaat contrat diraat seen bopp te wax naa ko léegi. tey booy demee bay amnistier mbir foog naa ni crime ak flagrant délit lañ war a amnistier boo demee ba ni kaaw Fulbert ak Didier Badji dañ ko dugal ci amnistie donc yaa crime voilà yaa a crime bañ ko bëgg a amnistier mais dem na toogaat moom moo ñëwaat dellu si waat daal ne bokku ci kon nañ ñu wax lu leer ñun loolu rek lañu ñu soxla soxla leneen lu dul ñu leeral mbirum Fulbert xamal ñu ñan ñoo def ñu def yoon def ci ñoom la mu war a def te ñun la classe 98 c'est ce qu'on réclame la lumière et que la justice soit faite pour le cas de Fulbert Sambou Euh, bon xam naa nag euh, dernière question mooy moom xëy na rectifié wu na ci face page Facebook am ni lapsus la est-ce que gisuñu dafa wax ba mu yàgg doo ko comprendre télé bi ak coow lu mu indi muy ni xaaral ma rectifié wu. waaw xam nga boo defee booy wax doo ko tey moom la mu wax noonu la mu njëkk wax ñoom seen xel lañu yor ñun suñu xel lañu yor di xalaat yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp ne taaratul xal bi laabu xol kon ñoom seen xel nu mu laabee ñu jàpp seen xel moo gën a laab suñu xel dañuy nax seen bopp ñoom ñu ngi foowee seen xel ndax mënoo tëb nga wax benn wax ba pare ëlbatiku waat ne question bi dalaa bett man su may ñëw fépp fu may dem je me prépare à tout damay préparé wu ci lépp donc ñoom ñu bokkoon ci régime Macky Sall fu ñu leen mënti woo plateau bu ñu leen mënti woo rek ñoom nañu xam ni danañ leen poser question sur le cas de Didier sur le cas de Fulbert sur le cas de Mancabou sur le cas de tous les victimes de l'ex-régime kon loolu ñoom dañ ko war a préparer xam ko mais boo gisee mu daal di wax loolu ba pare ëlbatikuwaat contradiraat ba ko wax leneen c'est parce que ñun la mu wax la ñu jàpp te la tax ñu jàpp la mu wax crime la ñuy amnistier boo demee ba ni boole nañ ko ci amnistie bi rek c'est parce que y a léegi nañ ñu élucider le crime boobu wax ñu ñan ñoo rey te ñi rey ñun xam nañ leen du ñenn ñu dul ñi ma la limal tàmbalee ko ci président l'ex président Macky Sall parce que il était le chef suprême des armées le premier militaire kon ñi ci des ñëpp ay complice u Macky sàll lañ ñoom ñoo rey Fulbert ñoo rey Didier léegi nag ñun li ci des mooy li ñuy ñaan suñuy autorités yi fi nekk nii actuellement muy le président Bassirou Diomaye Faye son excellence le chef suprême des armées que ni dossier Fulbert bi nañ ci ubbiwaat enquête def ci li ñu war a def di woowaat tamit son premier ministre monsieur Ousmane Sonko wax naa ko léegi Ousmane Sonko ak Fulbert Sambou ñoo jàngandoo ci benn école MST bu Ziguinchor donc Fulbert était son camarade d'école xamante nañ bu baax kon nañ ñu leeralal loolu te nañ ñu ci jàppale ndéem ñoom ñoo taxaw daal woote jub jubal jubbanti muy slogan boo xamante ni sénégalais yëpp ñu ngi ciy dox te man dafa doon slogan boo xam ne dafa ma neex kon nag jub nañ nañu jubbanti li nañ ko leeral léegi nag ñoom jub jubal jubanti la wax ñun la classe d'habitude 98 dañ ne na leer leeraat gën a leer waaw dafa war a leer quoi ci nopp ñëpp ndax victimes yi bari nañ ba ci yéen taskatu xibaar yi ci victimes yi ngeen bokk bari na ci ampaga yi tey fi ñu toogoon y le président Boubacar Sèye Horizon Sans Frontières président de collectif des victimes de l'ex-régime de Macky Sall ñoom ñëpp ñu ngi fa woon kon lii dafa war a leer naññ dañ ko war a leeral mu daal di leer yoon def ci la mu war a def bu neexee yàlla dinañ am gain de cause incha allah te lii dafa war a leer ndax bu leerul suba dina dal keneen ak keneen ak keneen te bu boobaa duñu am fu ñu ko jooyee ñi fi nekk nag loolu lañ leen di ñaan muy son excellence le président Bassirou Diomaye Faye le chef suprême des armées on a servi notre pays dignement on s'est engagé dans les forces armées de 1998 jusqu'à nos jours Fulbert a fait presque 25 ans de service on a écourté sa vie Fulbert travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille il avait des enfants et même des jumeaux Il voulait que ses enfants aillent dans de bonnes écoles. On a écourté sa vie, on l'a assassiné, on l'a tué. Donc on doit lui rendre sa monnaie. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire, c'est quoi S'engager, se porter volontaire, s'engager dans les forces armées, défendre les couleurs du Sénégal partout où il était, dans les missions des Nations Unies, dans les théâtres d'opération en Casamance et partout dans le monde. Donc on au président de la république à son premier ministre. waaye la nga tàggatoo euh, daw na yaram nag mais ni ñaan yàlla yoon daal di am parce que comme ni nga waxee am na ay jumeaux am na ay njaboot bi mu njaboot gi sew donc xam naa nag euh, ñu nga nga tàggatoo wala dafa am loo waaw xamal la ni Fulbert am na ay jumeaux Fulbert am na Jean Alex Wilfrid Sambou né le 11 octobre 2003 Fulbert am na Rose Amina. Niakane Sambou né le 3 novembre 2020 2006 Fulbert am na ay jumeaux kenn ki mooy tudd Edwige Lucia Claude Sambou né le 16 octobre 2010 keneen ki Eddy Junior Sambou né le 16 octobre 2010 Fulbert ñu ngi ko porté disparu le vendredi 18 novembre 2022 ñu déclaré ko décès le 23 novembre 2022 c'était un mercredi enterré ko un mardi 29 novembre 2022 à Dakar au cimetière Saint-Lazare mais comme ni ma wax léegi ki ñu suul Saint-Lazare c'est pas Fulbert Sambou c'est pas Fulbert Sambou lu tax c'est pas Fulbert Sambou wax naa ko ci njalbeen chrétiens yi dañuy exposer seen corps pourquoi ils n'ont pas exposé le corps de Fulbert dafa nekkoon ci décomposition avancée pourquoi suulu ñu ko ci plage bi ndax ñun xam nañ ni décomposition avancé ci plage bi lañ lay suul tey plage yu Yoff bi ba jàmmalaay ba foo jëm ba ci Petite Côte bi ñaata tomb nga fay gis bari na mais boo mënee dem ba jël corps génn ko dugal ko ci ambulance yóbbu ko dugal ko ci morgo congelé ko fa le 23 ba le 29 nga soog ko génne ñu dem enterré ko kon kooku waroon nañ ko mën a autopsie kon décomposition avancée boobu ñu ñuy wax gëmuñu ko te bu ñu bëggoon lu leer ba ñu tegee kooru Fulbert jabaram daa di ñëw ay nitam ñëw ay mbokkam ñëw dañ leen waroon wan koor mais waruñu leen ko wan par téléphone kooku ku mu doonoon ci ñun tamit da ngay buddee dangay dem sa yoon sa doom du gaañu wala sa jëkkër wala sa papa ñëw ñu la koy wan par téléphone loolu amul fenn identification la lañ def da ngay dem ba ci morgue ñu ubbi la tiroir bi nga xool nga ni moom la wala du moom mais par téléphone loolu yëpp amul beneen bi mooy lan Fulbert chrétien la xam nañu chrétien seen deuil koor bi dañ koy exposé pour ils n'ont pas exposé la corps ba affaire bi amee Fulbert fa mu dëkk ñaamul ay mbokkam lan lañ waxoon nañ leen jox koor bi ñu waxloo koor bi mais foog naa ne bu ñu bëggoon lu leer dañuy joxe koor bi ñu waxloo koor bi ndax man wax naa ko ndax man gis naa loolu en Casamance nekk naa fa ak gis waa joo xamante ne dalay romb di dox du nuyoo il ne parle avec personne bi ñu laajtee dañu ne kii dee na mais dafa am lu ñuy xaar pour def enterrement bi kon ñoom bu ñu nee mën nañ wax loo koor bi loolu mën na am mais boo bëggee set ci tuuma da lu tax defuñu loolu pour ñu set ci tuuma. ndox bu leen joxoon corps bi nañ wax loo corps bi wax lan moo rey kii ak kii mais bañ nga loolu exposé woo koor bi amul autopsie amul dara loolu nag dañ ni man sama wàll bopp man Babacar Diouf Abakara classe à feu Fulbert sambu je dis que ni haut que ñu suul Saint-Lazare c'est pas Fulbert Sambou nan ñu wax nan ñoo rey Fulbert Sambou kenn ki ñuy njëkk joxoñ baaraamu tuuma mooy le président Macky Sall qui était le chef suprême des armées ñi ci des ñëpp nag ce sont ses complices Macky Sall n'est pas là mais ses complices sont toujours ici ay complices a ngi fii kon nañu wax ak ñooñu xool naka la ñuy def nag pour extrader Macky Sall mu daal di ñëw andil ñu compte yu leer ci victime yi fi am yëpp plus particulièrement sur le décès de Fulbert Sambou et Didier Badji et Mankabo aussi waaw. merci beaucoup waaw jërëjëf euh, Ousseyn ñi ngi gërëm euh, waa seen teraanga yëpp. di leen ñaanal jàmm di ñaan jàmm ci biir Sénégal te lépp lu ñu soobu nii tamit yàlla na ko suñu borom euh, sottal ci barke sëñ Taïba Fall. jërëjëf euh, Aba Diouf euh, ñu koy wax Abakara moom mi nga xamante ni moom euh, xaritu doomu ndeyu ci ki nga xamante ni moom mooy Fulbert Samb gis ngeen du ñàkk point de presse bi ñu amaloon sànq mais gis ngeen également waxtaan bi lay euh, rañ yoon daal di def liggéeyam parce que sénégalais yi soxla nañ ko mais moom ay doomam ne serait ay doomam ne serait-ce que ay jabaram ñu mu fi bàyyi ñu xam mbir mi naka la demee exactement euh, di ko jaajëfal si déplacement bi ndax suba ba léegi sonn na te war na nekkaat ci yeneen i mbir jaajëf frère merci ko